beaucoup les téléspectateur de Africa 7 émission amul N'Ebo. amul nëbboo n'ak di ko dimanche 14h joté. ñu ko euh, mardi Manam talate bu 22h joté, je fukki waxtu ak jeudi tamit euh, bu midi joté, Manam 12h euh, C'est l'émission amul Nebo, nous ni ñu koy nous avons invité ay plateau ñu waxtaanee réew mi ni muy doxee ak euh, ni ñu koy doxalee xanaa rek dañuy profité ci occasion bi pour euh, euh, sargal ziar ñi nga xam ne ñoo demoon ci màggalu Touba bi di leen wax rek ne dañuy ñaan lépp loo xam ne sabab nañ ko mëbët nañ ko ëmboon ko yóbbaale yàlla na ko yàlla sottal mu doon njiglaay doon jàmm ak salaam ci réew mi di réewum Sénégal. Tainak si émission amul nebo dañu dalal ki nga xamné mom euh, Fatou Tambedou Fatou Tambedou nak euh, un ministre délégué auprès du ministre du renouveau urbain de l'habitat et du cadre de vie chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues euh, dénomination bi nag da xaw gudd sax motax ma wax ko non ci nasaran motax euh, ci biir émission bi euh, danañ ko faram-fàccee ben ak ben ba tax ñu xam ministère bobu yépp limu ëmb lan la balaay ñu lool rek damay wax salaamaaleykum sunu invité bi nga xamné mom modi fatou tambedou salam Tambédou madame le ministre. maaleykum salam ma ngi lay nuyu bu baax di la jërëjëf euh, madame le ministre ni ma ko waxee sànq sa ministère xamna dénomination bi gudduna waye waaye dinañ am temps faram-fàcce ko ngir ñi nga xam ñoy sétane euh, seetaan euh, émission amul na bo waye balay bobu dama bëgg rek dañ ko faral di def buñu invité ko xam ne faralul di ñëw ci plateau amul na bo wala bok sénégalais yi xeyna xamuñu ko bu baax dañ koy laaj rek un petit peu jaar-jaaram notamment ce cursus scolaire ba fi nga yegg si tey jii. waaw ma lay jaajëfal comme ni ma ko waxee sànq di profité ci occasion bi nga may ma balaa may présenté wu di sargal population sénégalaise Sénégal yëpp euh, di leen euh, wax. kontante bi ñu am ak mbégte bi ñu am fekkiwaat bés bu tedd bu mel ne que bésu Màggalu Touba ñu fas yéene ci jóge jëm ci bés leen bés bu sell muy bésu gàmmu ñu ciy profité ñoom ñëpp di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan yàlla lépp loo xamante ne mbébét la ci ñun ak lépp loo xamante ne que wér gu yaram na yàlla may ñu ko ñu fekkewaat koy at yu bëree bëri defe naa Fatou Tambédou euh, sénégalaise la comme ñëpp fi laa juddoo

Euh, politique euh, li ma ci dugal euh, mën naa wax ne bëgg a jëriñ sama réew ndax su ma koy xool yenn saa sax na ma koy fàttaliku mbir mi jaaxal ma lool ndax am na ay jamono yoo xam ne mbiru politique wax waxuma ci woon dara yàlla dogal bi ma xoolee gis le président Macky Sall gis engagement bi mu am gis tamit mu nekk jeune. boobu newagul président. boobu newagul président ah. waaw defe naa loolu lu jar a leeral la. Mm-hmm. boobu newagul président kon ñun. xaaru président bi xaaruñu waaw parce que ñun. boobu Macky Sall kese la woon. du woon Macky Sall kese ci ñun ndax mm-hmm. yàlla dogal na mm-hmm. ñun depuis toujours dañoo mësoon a gëm ne dina nekk président de la république bu Sénégal. ba tax na ñun sax noonu lañ ko mës a woowee dëgg-dëgg nag moo tax euh, tur bi daal Macky Sall bi miinuñu ko te tàmmuñu ko. Mm. parce que dañu yàgg jàpp ne moom kat euh, xale la doy na askan bi doy na réew mi ba tax ñun ñëpp euh, ay jeunes man ak sama yeneen i moroom ñu engagé woon à ses côtés ba tax na ci lu bari sax. boo xoolee biir alliance pour la république yenn say dañ leen nan ñu fa nek duñu euh, duñu ay politiciens yu yag parce que ñun ñep euh, ak le président Macky Sall vraiment c'est lui qui nous a montré le chemin euh, ñu xol ko mu doy ñu idéo yu mi développer aussi doy ñu ba tax ñu engagé wu ci politique. waaw xam nga ñu bari bo len laajee sen digënté ak Macky Sall dañ nan période bi kuñ koy burno xataal ci biir PDS. période bobu le sen xol jóg ñu jóg jappalé ko ci walu politique bi mu fassiyé won def berdaram Euh, yow ba ngay dugg da nga xaar ba APR ñu créer ko wala balaa ñuy euh, créer APR nga duggoon. balaa ñu ci balaa ñu koy créer balaa ñu koy créer boobu ñun ñëpp taxaw nañ ci parce que euh, tamit suñ ko xoolee lépp loo xamante ne dafay bund xataal nit wala dafay sonal nit wala lépp loo xamante ne que les droits humains dafay tax ba ñu négliger ko donc ñun ci loolu la ñuy taxaw. ba tax na daal jamono yooyu bañu ñu ni ñu ngi koy sonal diko sonal bu baax ci la ñu euh ni mala ko waxee sax man musuma bëgg politique mais injustice tamit bëgguma ko xëy na euh, côté juriste bi motax côté droit de l'homme bi motax ma euh ñu jëlol lepp dal di koy teure ci suuf engagé wu ànd ak ànd ak euh, moom ba yalla defal ko ndam tay waaw très bien euh, élection locale yi ñu genn euh investiro nañ la ci liste Benno Bokk Yaakaar ci sa fief fële ci keur Massar. Euh, ñu gis né rek euh, ba mu desee lu dul mairie ba euh manam dal li tubaab naan le fauteuil vous a filé entre les doigts lu xew ba fauteuil bu mairie ba rëcc la. je ne pense pas fauteuil mairie bi rëccu ba ndax bo xolé tay euh mairie ba ben bokk yakar moko jël euh mën wax sax APR tay bo xolé euh, ka nek maireu keur Massar ci APR la bokk donc fauteuil bi fileew entre les mains tayit it euh, defe élection locale yi moom yaa ngi may fàttali passage bo xamantene ne que bu ma neex la ndax euh, ku deuk keur Massar ku ne mbaa nga deuk département de Pikine xam nga bu baax élection locale yi fàttaan bi du ban taxaway la ci amone nan la ko doxolé ak nan la ko défé biir keur Massar te boobu yàlla dogal ma nekkoon wasin bu bess ndax sama doom mi ngi tolloon ci 1 mois mais téwul Euh, campagne bu tax ñuy wax campagne moom dëgg-dëgg nag moom euh, am na lu ma ca jéem te am na lu ma fa def ah, donc fauteuil bi fileew ma entre les mains ndax man candidate laa woon donc loolu ah, yaa ngi doon xëccoo euh, mairie bi maa ngi doon xëccoo maa ngi doon xëccoo mairie bi bu baax yàlla dogal bien avant même que ñuy voté bureau municipal bi président de la république nommé ma ministre délégué comme ni nga ko waxee tur bi gudd lool dinañ ci agsi waat Euh, donc bi ma nommé ministre euh, ministre ci la ma ne lépp lu jëm ci wàllu mairie bi daal euh, dama bëgg nga teg ko ci suuf te dama bëggit ki nga xamante ne moom moo fay candidat benn bokk yaakaar nga jàppale ko loolu tax ma jëloo lépp teg ci suuf comme am na feneen fu mu ma soxlaa woon foo xamante ne Euh, mën naa wax ne lépp rek ci euh, régler ak lijjanti mbébétu sénégalais la ma ne kon naa bàyyi loolu te gunge ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk. waaw naam c'est vrai post ministre moom euh, sa sa tentacule ni ñu koy waxee ak sa domaine d'action dafay national. waaye ba ngay jóg di politique waa Kër Massar ñoo la jàppale ni nga leen du yu noonu daal di jël post ministre bi bàyyi seen mairie bi mbaa naqariwu leen. bàyyiwu ma ko ndax boo demee ca mairie man conseiller donc bépp taxawaay boo xamante ne que falaa euh, dëkk réunion conseil falaa falaa dëkk ba léegi <laughs> Kër Massar Kër hmm. Massar laa dëkk ba léegi hmm. euh, du mooyu ma leen it may profité ci plateau bi di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ndax chaque fois damay toog di ko wax nee naa ñu fal la ministre nga continuer dëkk fa nga dëkkoon nga continuer nekk ak ña nga nekkaloon dafa fekk nekk rek ñoom ñu may la jàmm ndax am na nu ñu doon taxawee wala am na nu ñu doon defee amaana dinaa am lu tuuti loo xam ne dama koy ragal ci loolu euh, xam nañ bu baax sama taxawaay euh, te ñàkk nekk maire bi nekk ministre bi tey euh, mën naa wax ne amul dara lu ma yàq ci lépp lu ma fa war a def man ak ñoom guddi bëccëg suba ak ngoon la warloo ak ñoom ma cay taxaw la ma leen war a jàppale ma koy def pour xam ne rek vraiment ak fuñu ñu mënti toll ak luñu ñu mënti doon loolu du tax ñu fatte fa nga xamantene ne que fa lañu fa lañu ñu won wa très bien wa ce ministère bi nañ ci ñew légui mais dama bëgg rek ñu faram fàcce ko euh déjà euh dafa am ben connotation manam ministère de l'inondation lañ faral di wax. Euh, manam dal li ngeen di topato yépp ci walu inondation la lu waral sax euh, terme bobu boy lacc sax ñu ne la ministère inondation lu waral lolu waa ministère inondation bi defe naa loolu euh, dafa fekk nekk rek Emrasi bi fa nekkoon. Euh, sama càmmiñ Khadim Diop ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées mhm. donc loolu euh, sama càmmiñ Khadim Diop yoroon ko moo tax xëy na ba léegi tur boobu mënta mënta mënta deñ ñu jàppoon ne que tamit ministère boobu keroog bañ koy ba président di ko xalaat di ko mbébét fekkoon na askan bi sonn lool ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu taw yi ci li nga xamante ne que moo jëm ci wàllu ino ci wàllu inondation yi mm. tur boobu mën naa jàpp ne loolu mooy li nga xamante ne que moo ñu topp ba léegi waaye ànd ak lu ci mën ci am ministère la boo xamante ne eh, li ñu war a def bëri na euh, boo ko xoolee sax ndax buñ nee restructuration de des ya loolu moom liggéey bu bu rëy la Euh, yàlla dogal it mu nekk ci ministère boo xamante ne tout ce qui est renouveau urbain habitat cadre de vie nekk ca kon loolu euh, defe naa liggéeyam weesu na lii nga xamante ne que moom mooy gestion des inondations. waaw loolu sax daan ci ñëw mais am na sax ñuy dem ba naan sax ministère nawet ngeen maanaam bu nawet bi ñëwee ngeen liggéey bu nawet bi ñëwul ngeen vacances. ah dañuy liggéey nawet nag ak di liggéey noor. Hmm. ndax euh, soxla yi moom du nawet rek la yem te bu nawet weesoo am na lu leneen lu topp ca nawet Euh, euh, jub ci euh, ndortel ba mo gën bayyi ba nawet gi ñew wala ba mu taw amana nga bëgg ci jug ndax dina am yu bari yo xamantene ka di nga ko bëgg def waye do ko maté ndax mm. yéxa a gi très bien sank wax nga ko habitat bokku na ci sen ministère cadre de vie bokku na sen ministère yoyu ay dénomination yo xamné min nañ ko waye buñ né restructuration ak requalification lan lay signifier restructuration ak requalification moy manam défarat des banlieues précisément defaraat de des des banlieues te foofu it nga may ma ndax bu ñu nee des banlieues bëgguma rek ñu jàpp ne banlieue Dakar kese la yem parce que yooyu interpellation yu mel noonu. loolu sax daan ci ñëw incha allah mais mën nga eggali ba tey euh, de ce fait euh, bëgguñu rek ñu catégoriser ko ci wàllu Dakar. Mhm. donc tey mbébét gi nga xamante ne que moom la président Macky Sall am gannaaw ba mu defee ay ouvrage yoo xamante ne yu mucc ayib. def ko lu ci mel ne que Dakar def ko lu ci mel ne que feneen ak feneen ba yàlla dimbal li ñu ren macha allah euh, ak li mu taw amuñu benn problème parce que ouvrage yi ñu def c'est des ouvrages. ren nag tawul tawul lu bari. Euh, mais taw na. <laughs> soxna si ren moom tawul lu bari xam naa loolu moo leen xaw a sauvé. déedéet taw yi taw yi ñoo tegloowul. Hmm. taw yi ñoo tegloowul. Hmm. mais dëgg dëgg nag moom taw na parce que euh, ci li fi li fi jot wàcc. bu fekkoon ca jamono yooya la maanaam boo ko jëlee ci 2012. ñun ñi dëkk ci banlieue bi xam nañ bu baax nan nan la daan mel donc loolu ñu gis ne am na ay avancées yu bëri yu am solo yoo xamante ne def nañ ko ci mm. ñu gis ne it ci yenn ci askan yi nekkoon ci zone yi daan am ndox euh, daanaka yëkkati nañ leen relogé nañ leen ñi ngi dëkk Tawfekh Yaakaar euh, sit yooyu aussi du lu ñuy bàyyi noonu parce que sit yooyu euh, war nañ ko fa war a mën a yëkkati mm. war nañ fa war a mën a dindi lépp luy ndox waaye war nañ fa war a mën a xalaataat lan lañ fa war a mën a def

Euh, daana jéggi dayoo trop waaye ak euh, dëgg-dëgg mbébétu président Macky Sall moom mi nga xamante ne euh, politique sociale bi da ci liggéey lu am solo tey daanaka foofu boo demee. ouvrage yi lan la ay. ay canalisation la ay lan la. am na am na ay drainage d'eau ay drainage d'eau am na ay canalise am na ay canalisation. am na it ay logements sociaux parce que loolu it waruñu ko waruñu ko fàtte eh, xëy na li ci gën a voyant mooy logements sociaux yi nga xamante ne chaque fois ñu ngi koy waxtaane ndax canalisation yi xam na lu ñuy suul la te lu ñuy suul nag moom euh, déjà euh, euh, wax ci dina dina dina xaw a jafe. waaye duñ ci mën a teg bët effectivement. waaye ànd ak lu ci mënti am ni ma ko waxee sànq population bi nekk ci banlieue bi daan sonn ci ndox mi inondation yi daan ñu solal tey dëgg-dëgg ñun xam nañ bu baax njëriñ yi nga xamante ne am na ci ouvrage yi président Macky Sall def ba ci dali foor yi nga xamante ne que jege na lool ku nekk gis na na nga xamante ne na na noonu la doon mel waaye tey yàlla dimbali nañu vraiment ak dimbali président Macky Sall loolu jóge fi te it sax nag euh, euh, président taxawaay boobu la mënoonoo la mënoon a amee euh, ndax xam na banlieue miin na baal banlieue ñëw na fa noor ñëw na fa ñëw na fa nawet daraan taw mu koy fekkee kon xamna bu baax li nga xamantene ne que moom lañ daan dund ba tax bi mi toogee mu jël ci ay saafara yi nga xamantene ne que ñoom ñooy saafara yi. waaw ci saafara yooyu amna luñ nane plan décennal ah de lutte contre les inondations plan décennal bobu def ngeen phase pilote def na ouvrage yi nga tudd ci la bokk euh, phase bi ñu nekk nii euh, lan ngeen def exactement. Euh, ñu ngi nekk ci phase intermédiaire bi phase intermédiaire bi def na phase d'urgence bi ci lañu profito won waroon a jot benn financement boo xamante ne que BID la banque islamique de développement bi ñu xoolee gis procédure bi vraiment euh, xaw a yàgg euh, lool président Macky Sall ci wàll boppam. d'instaurer euh, est comme quoi que état bi en charge la construction de ces 2000 logements sociaux de donc nous euh, jot nañ ko def ci première phase Nous avons ko déplacer tax déplacé une population une euh, phase qui est toujours en continuité parce que ba fii may fait, yow ni ça a ne am ay dina am ay attribution day fay am ay séance d'attribution yoo xamante ne ba léegi ñu ngi koy def ñu ngi joxe ay kër euh, ouvrage yi nga xamante ne aussi ñu ngi ko doon def yëpp pare ndoowuñu ba tax na tey euh, du point de vue de la continuité am na yoo xamante ne que ñu ngi continuer waaye damay profité foofu ñaaxaat yenn ci askan wi euh, ndax dëgg-dëgg nag man dama jàpp ne ñun ñëpp war nañu contribuer ci li nga xamante ne que moom mooy doon li liy defar dina metti trop wax naa ko ci benn plateau nga dëkk ci gox yàgg fa amaana sa njaboot yëpp euh, fa lañ juddoo amaana it nga nekk fa ak say nit ñu baax nga am fa ay titre lu mel ni que délégué de quartier nga am fa ay titre yu mel ne que imam kon tey sa lépp nekk ci quartier boobu nga xëy rek bëgg faa jóge dina doon loo xamante ne que dafay metti waaye ci li ma jàpp mooy que ñun ñëpp suñu mbébét rek dafa war a nekk ci defar comprendre nañ ne que metti na lool waaye loo xamante ne daal tawféex ak ngëneel la indi ñep d'autant plus que euh, fi ñu leen di yobbu ñom ñoo fay tassé ji waat suñu démé ba tassé waat fa nak euh défé na quartier bi rek la ñu reconstituer de ce fait dina permettre euh, signe de confiance bi amone ba tax amana ñu yëkëti la ne yow yaay imam baa ñu yëkkati la ne yow yaay délégué de quartier bi loolu mën nañ la ko délo delloowaat. Mm-hmm. ndax am na ci yeen ouvrage yo xamantene ne. deug mm-hmm. dëgg gis nañ ne ci phase intermédiaire bi waroon nañu continuer mais askan bi ci ñenn dal deug deug na tax ba ouvrage yoyu euh, continuer wul euh, leneen li ci top moy lu concerne bassin parce que gis nañ ne que bassin lu ci bari dañ daan joytu ne amul ay clôture euh, xalé dañ ci doon daanu mais gis nañ vraiment euh ak phase intermédiaire bi lolu mi ngi am ay avancées yo xamantene ne yu considérable wa léegi nañ dellu si ci Tawfekh Yaakaar Tawfekh Yaakaar communication bi ngeen ci defone au départ

Euh, yaakaaruma ko tawféex moom euh, liñ ci liñ ci war a wax ak li ñu ci war a def def nañ ko donte sax nag toll ci 2000 logements yi ngeen toll ba léegi 2000 lañ fa prévoir oon 2000 logements lañ fa prévoir oon hmm. am la ñu ca def te la ca des bëriwul ndax cent 1793 logements fu ñu ko def ci 2000 ça veut dire que ne euh, yemb na hmm. nga comparé ko te loolu ci ñaari at la ma la koy préciser nga comparer ko ak ci yenn ci logement yi nga xamante ne que initié nañ ko fi woon. Euh, ndax defe naa logement <laughs> yooyu moom. neel plan jaxaay dañ ci euh, ñëwaat léegi ci kanam man sax sama yaram sama yaram dafay daw. Hmm. ndax euh, am na ci. yoo yoo xamante ne en tout cas sept moom kenn du ko tëkkale ak deux ans te hmm. logement yooyu Euh, ñu ngi ciy communiquer askan bi xam nañ ko xam nañ ko bu bu baax a baax a baax. Mm. li ci des rek mooy yenn commodité yi defe naa loolu bi ñuy jël projet bi euh, yëpp euh, viabilisation beeg yeneen ak yeneen yooyu yëpp dañ ko jëlaale woon en en compte ñun ci suñu wàllu bopp liñ ci war a def def nañ ko liñ ci war a dox dox nañ ko ndax man mii di wax ak yow correspondance yi ma ci war a def. à l'égard de mes autres collègues pour que lépp lu jëm ci wàllu ndox lépp lu jëm ci wàllu courant ak yeneen ak yeneen domaine euh, def naa ko euh, ñi ma ci war a waxalit ñenn ci ñoom yëkkat naa sama téléphone euh, woo leen wax ak ñoom kon daal ñun ci ministère bi lépp loo xamante ne que suñu wareef la ci woon wala suñu tolluwaay la ci woon mën naa wax ne que def nañ ko parce que chaque fois dañ leen di gis ñuy wax mais ministère bi moom dëgg-dëgg tamit chaque fois dama leen dama leen ci dalal seen xel ndax euh, nee naa man ci banlieue bi la dëkk donc lépp luy defar banlieue bi lépp luy tax nitu banlieue bi am jàmm nekk ci salam man loolu defe naa ndam gu rëy lay doon ci man dëgg-dëgg. waaw mais li ñu bëggoon a xam mooy euh, Tawfekh Yaakaar euh, ci 2000 logements yooyu la yem wala am na beneen programme ci plan décennal bi ñu wax sànq mooy plan yi duré ci 10 ans est-ce que am na yeneen logements sociaux yoo xam ne prévoir nañ ko pour ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ci ndox mi ci wàllu banlieue bi. am na yeneen logement yoo xamante ne que prévoir nañ ko. Euh, muy financement boobu mal la doon financement BIT donc financement bobu euh, ci liko ko taxoon moy tabax 2000 logements sociaux yu Tawfekh yalla dogal loolu jël lañ ko en charge teewul nak la ko taxoon batay jóg ba tey looloo fi euh, lutte contre les effets induits mu jëm ci walu inondation donc loolu dinañ xol nan lañ koy chambaré nan lañ koy euh te nak euh may wax ne du yem rek dakaar du doon ay logement yoo xamante ne dañuy jëlaat lépp rek xëpp ko dakaar bàyyi yeneen région yi parce que yeneen région yi aussi dafa am ay particularités tey boo demee banlieue am na ci yeneen région yi euh, am na ci yeneen région yi effectivement boo demee lu ci mel ne Thiès euh, boo demee quartier ba mu ñuy wax Ngent euh, defe naa sa yaram dafay daw boo demee Diourbel am na fa boo demee Kaolack quartier bu mel ne Xaaxun am na fa donc yooyu yëpp vraiment nekk ay projets yoo xam ne dañuy euh, euh, construire ay logements sociaux euh, jox ko askan bi waaye tamit bërëb ba ñu nekkoon ni ma la ko waxee rek niñ ko defee pour Dakar noonu lañ koy defee pour feneen ak feneen maanaam bërëb yooyu duñ ko bàyyee noonu rek muy favoriser banditisme bi ak yeneen ak yeneen mais dañ koy restructurer dañ koy requalifier te it nag lépp luñ cay def du càggane que rek dëgg-dëgg état dafay ñëw imposer état du imposé une démarche bi ñi adopté moy une démarche participative donc dañuy ñëw ci askan bi waxtaan ak ñom xol lan moy yi nga xamantene que seen mbébét la and ci ak ñom parce que bu féké espace vert lañ koy def lolu aussi foog ñu and ci ak askan bi yépp ñu jàppale ci parce que am na loo xamante ñoom ñoo d'accord boo leen ci dugalul mën nañu toog seetaan la nga pare entretien bi ñoom ñoo fa dëkk ñoom ñoo ko mën a def kon loo ci def. foog nga laloo ko bien sûr léegi man li ma bëggoon rek ñu toog foofu mooy logement yi nga waxoon euh, dina am ci yeneen banlieue yi nekk ci région yi. Euh, ñu seetlu ne am na 700 logements sociaux yoo xam ne taxawal nañ ko fi ñu choisir mooy Thiès Saint-Louis Kaolack Fatick ak Joal lu waral loolu. parce que am na ñoo xam ne sax notamment ay députés yëkkati nañ seen kàddu ne dafa xaw a discriminatoire niñ ko euh, séddalee daal séddale mbukki lañ ko def lu tax loolu waaw man chiffre yooyu moom du ma ci du ma ci du ma ci mën wax lu bëri du ci mën wax lu parce que euh, le président de la république bi ma nommé euh, daf ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues mm-hmm. te it euh, defe naa ci ci ci ci ci samay prérogatives tout ce qui concerne les logements sociaux c'est la bokk

daf ci am walu go xamante que dañ koy la construction de logements sociaux et que nag euh, euh, les autres banlieues du Sénégal duñ leen laisser en rade loolu wax nañ ko parce que président Macky Sall vision moy euh, zéro banlieue sur toute l'étendue du territoire ñu lé ci loolu aussi dina jël ben patch bu nga xamante ne que dañ koy jagleel ay ouvrages structurants parce que ci li mala waxé rek lépp continuité la

ki wax ay chiffres xëy na euh, man moom dina leen mën a indil ay réponses par rapport ak loolu euh, defe naa man bi ma jugee ci conseil euh, interministériel boobu la ma ca war a dox dox naa ko parce que les représentants de la BID recevoir naa leen waxtaan naa ak ñoom mettre naa leen en ak samay collaborateurs yi nga xamante ne que ñoom laa dénk mbir ma pour ñu saytul ma ko pour ñu toppatool ma ko def nañ fa ndaje defati fa ndaje la ma ca war mooy Euh, une correspondance que a au ministère de l'hydraulique étant donné que nous avons géré par maître euh, ONAS bi nga maître d'ouvrage délégué parce que les lu ñuy def ci euh, pour la lutte contre les inondations nous ñooy bras armé donc nous avons def une correspondance jox pour que ci gens qui maanaam pàcc boo nga commencé def seen i étude technique xool nan lañ koy doxalee xool fan ak fan lay jaar kon man loolu laa ca wàccoo quant ay chiffres nag moom. Hmm. dëgg-dëgg man chiffres yooyu euh, yëguma ko tinuma ko. donc euh, su su su invité fii sa ministre de tutelle Diène Farba Sarr xëy na xëy na dana fi indi ay leeral parce que moom ci boppam àdduna ci ci assemblée nationale. waaw sànq wax nga ko nee nga euh, xam nga sinistre yi déplacement bi dafay indi libération d' espace. ah yoo xam ne nee nga mën nañ fa def espace vert waaye xanaa xalaatu def ay espace vert rek xanaa xalaat ngeen def ay école ay marché yu mel noonu yoo xam ne parce que banlieue bi dama la ko dama ko dama la ko jox pour pour pour mais du espace vert rek te wax naa la ko nee lu lépp lu ci def dañ ci boola euh, ak euh, ànd ci ak askan bi mm-hmm. tey da jël par exemple euh, commune d'arrondissement bu mel ne Gounass soo demee ñoom amuñu école nga dem beneen commune d'arrondissement beneen réalité fa ne donc dañuy xool selon les besoins du milieu donte nag espace vert bi boo xoolee ci wàllu boppam di nga gis ne dakaar mhm. loolu daf fi doon li nga xamante ne que moom mooy problème dëgg-dëgg ba tax na euh, mi ngi ci euh, programme bi mbébén nañ ko ci waaye bépp commune bu ñu dem aussi gis ne da nga am sa particularité dafa am loo xamante ne moom moo prédominant ci yow li nga soxla amuñu intérêt di jël espace boobu di ko def leneen loo xamante amalul njëriñ askan bi askan bi soxlawuñu ko donc loolu lañ ci déglu population yi wax leen faaw ñoom ñu fa dëkk lan la ñu bëgg faaw ñu déglu leen faaw ñu ànd ci ñoom lépp lu ñu fay mënti defit ñun ak ñoom ñoo ciy ànd très bien euh, sànq xaw nga koo junj man ma tudd ko muy plan jaxaay euh, plan jaxaay il paraît que am na benn problème recouvrement des loyers loolu euh, mën a wax ci loolu ñàkk fa ñàkk fa waaw amna problème recouvrement mais les services compétents quand même ñu ngi def le tout pour faire mhm. euh, nan lañuy def ba problème bobu ñu régler ko dans les plus brefs délais mhm. mhm. manam dal euh, solution amagul dal ah, yéen a ngi ciy xalaat. ah kay bu ci nit ñi dee xalat parce que ñenn ñi xamna naa dañoo xëy problème communication la parce que ñenn ñi dañu yaakaar na xeyna na dañ leen ko mayoon. mangoog fofu la ci fofu la ci bëggo a parce que xam nga lu nguur di joxe mom dañ naan ah état moom bu joxee rek dafa dafa dafa dafa maye. Hmm. donc euh, loolu moo ci compréhension bi ñenn ci askan bi am. Euh, mais service yi nga xamante ne que ñoom ñooy. kooku euh, war a communiquer. suñu suñu suñu suñu wàll la te danañ ca def la nga xamante ne que moom moo ca war ba jàpp nañ daal askan bi dinañ am compréhension par rapport mi ngi mel ne it euh, sooy ñëw ci attribution logement yi. parce que comme euh, commission bi euh, sànq moo boobu laa doon cherche daf ma xawoon donc euh, ci lu bëri di gis yenn saa yi ñoo xamante ne que locataire la ñu woon maanaam nga dëkk ci bërëb xam nga da ngay fay bu la fa ndox fekkee am nga sañ-sañ jóge fa dem feneen dem fay mais dañuy gis ñoo xamante ne dañuy nekk ci situation mais dañuy taxaw. mel comme si ñoom it logement sociaux yi. dañ ci war a bénéficier foofu aussi am na sànq wax nga wax nga ko xam nga am na lien affectif. bu li quartier ak population ba fa ne imaginer ka fa chef de quartier ba xeyna amul chef de quartier bi ci boppam dafa louer ngeen toxal quartier bi chef de quartier bobu and ak lu ci am du meuna dem jël xaalisam dem di louer fenen lien affectif ak li ci li ci li ci

waaye ñi nga xam ne ñoo di architecte yu Sénégal yi ak urbaniste yi euh, dañu yëkkati seen kàddu ne vraiment dañ leen a boddi ci euh, programme yooyu ah, ñi ñu ko jox daal ay marocain ah, lañ leen ko jox ñëpp ñu aki euh, akimoo liggéey bi ñu war a liggéey cité yooyu génne ci architecte Sénégal yi génne ci ñi nga xam ne mooy sénégalais yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu woowu yow loo ci xam. jàppee ma ko noonu parce que marocain yi mënuñu fee ñëw ñun Sénégal lañ dëkk. mënuñoo ñëw di am privilège wala di am benn supériorité boo xamante ne que euh, dañ koy am ci doomu euh, Sénégal yi donc man jàppuma loolu te dès lors que président woote partenariat public privé euh, loolu defe naa sénégalais yi ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo ci war a jiitu te président Macky Sall mi ngi def ay effort yu rëy

yi nga xamante ne ñu ngi koy bëgg a développer tey ce serait avec leur aide ñom walu gu reuy walu gu bari lañu lañ ci am té défé euh, euh, mm. na euh lolu xeyna ay ci ay ci ay waxin la rek wayé mm. duñu favoriser jàmbur ci kaw ñi nga xamante ne waaw am na leneen loo xam aussi yëkkati nañ ko nee nañu logement yi marocain yi di proposer euh, méngoowul ak ak suñu façon dundu famille sénégalaise yi Euh, famille sénégalaise nu muy dundee xam nga réalité yi bokkul ak marocain famille ba nu muy dundee euh, ñoom bu ñu ñëwee dafa mel ni daal seen réalité dëkk lañ ñëw rek indi sampal ñu Euh, loolu tamit architecte yi ak urbaniste yi yëkkati nañu. yaa yaakaaruma ko man daal li ma li ma bëggoon daal mooy que nañu jege les services yi nga xamante ne que ministère euh, du renouveau urbain de l'habitat et du cadre de vie bi nga xamante ne que. Mm-hmm. tey yàlla dogal na président Macky Sall moom la dénk loolu. Euh, ñu xool dëgg-dëgg nag nan la ñuy mën a jàppee ci liggéey bi ñun ñëpp mais loolu moom. Euh, dëgg-dëgg yaakaaruma ne. waaw d'accord architecte yi ak urbaniste yi ñu ngi ñuy dégg. waaw nañu nañu <laughs> ñoom yëkkati woon seen kàddu di kaas nañu jege daal ah, ñu ñu ànd. liggéey liggéey réew mi leen gën a jege pour gën a waxtaan. waaw moo ci am solo waaw euh, ñu toog ci euh, li nga xam ne moo di projet yi notamment la am ca jam ñaajo ñu di ko wax pôle urbain bu bu Diamniadio waaye gis na ne fi mu toll nii. li ñu naan spéculation foncière maanaam suuf bi bu doon jar benn di jaar ñaar wala ñett Euh, bu dee spéculation immobilière ñu koy ragal parce que bu tabax yi taxawee est-ce que euh, nit ñi duñ ci laxas jaan ñu koy waxee euh, yeen est-ce que jël ngeen devant ci sen ministère pour manam limiter lu mel non. lolu jël nañ ci suñuy suñuy précaution bu baaxa baaxa baax a baax te it jam ñaajo moom defe lu lëndëm mënu fa am ndax jam ñaajo président Macky Sall moo koy géreel bopam lolu amul kenn ko xamante que di nga am makama di fa def lu la neex parce que dafa am lu mu fa xalat dafa am projet bu fay développer té lolit it dëgg du sétane dara di doon likoy nasaxal wala lu koy lu koy xalat len dal mo am ñoo xam dal dañuy jël suuf si niñ len ko yombalalee ñu defar ko bo paré yëkëti prix du ci du ci am parce que ni ma ko waxee président ci bopam moo koy moo koy gérer boppam donc à travers le plan Sénégal émergent do woote émergence bo paré nak ngay sétane ñu ci mel man mbaa samay morom di dëkk ci di. parce que ña fay liggéey dañ leen ko yombalal. lu leen neex non loolu état da leen ko yombalal. loolu mom, defe naa bu ñuy wax état rek c'est symbolisé par la personne morale. Mm-hmm. et cette personne morale semble être le président Macky Sall. Mm-hmm. loolu mom moo koy gérer boppam du seetaan yéen di fa waaw très bien euh, am na lu tubaab di wax euh, connectivité Manam Diamniadio euh, comme ni mu nekkee pôle urbain mu mën di jokkalante ak benen pôle urbain bi bu Lac Rose. ak yeneen dëkk yi nekk ci Sénégal est-ce que connectivité boobu am na euh, sóoraale nañ ko bu baax euh, ci euh, pôle urbain bu Diamniadio sóor nañ ko bu baax ñaajo moom lépp loo xamante ne que danañ ko fa def lu nduroog ak une ville moderne loolu danañ ci bàyyi xel te man mi dëkk Kër Massar donc nekk ci diggante ñaajo ak Lac xam naa bu baax yoon bi ni mu meloon maanaam connexion bi xam naa bu baax ni mu meloon gis naa tamit amélioration yi nga xamante ne que am na ci bu baax a baax

maanaam lépp loo xamante du point de vue foncier parce que euh, suñu quartier yi dafa bëri trop euh, irrégularité par rapport ak yenn tabax yi par rapport ak euh, norme de construction yi ndax respecté nañ ko tamit di nga fekk ay dëkkuwaay yoo xamante ci benn zone ñu war fa def ay kër yu suufee nga war fa fekk ay dëkkuwaay yoo xam ne dafay disproportionné par rapport ak li fa ne donc yooyu yëpp ay question de sécurité la ay ay question de de de de santé publique te it nag euh, teel ci jóg ndax li olof di wax xoddali ko balaa ngaa balaa ngaa mooy li nga xamante ne que moom mooy li ëpp solo donc doo bàyyi ba mu xëy rek daanu ci ay nit wala xëy indi fa problème su boobaa euh, nañu ci yàlla musal muy mel ne que rek euh, bata joolaa bis donc yooyu Euh, askan bi li may wax rek état amul intérêt di yàqal dara askan bi. kon mm, yooyu est-ce fañ ko war a def cible nañ ko ba pare est que waxtaan nañ ñoo ñi nga xam ne ñoo fa nekk wala ñi ko moom. Euh, euh, mesure boo koy jël du da ngay xëy rek imposer ko. lu ñuy waxtaan la am na ay préalable yoo xamante ne que forcément faw mu am ci am na ay études yoo xamante ne aussi forcément faw mu am ci kenn du xëy rek ne damay engagé lii ci lii laa jëm déedéet dafay fekk nga càmbar ko waxtaane ko ak ña nga ko war a waxtaane xool lépp loo xamante da ko laaj parce que ñoom aussi dafa am ci lu ñu nekkoon boo leen cee jëlee dafa am leneen loo xamante da nga leen koy tegal donc loolu mesure ak euh, prévision yi ci war yëpp pour que euh, mu bañ indi benn problème parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn warta gàllankoor kese yooyu euh, même bu ñu ko waxul sax dañ ko dañ dañ koy def c'est tout à fait normal. Hmm. waaw am na beneen problème boo xam ne faral nañ di ko gis ci mbeddu ndakaaru yi mooy ay nag. ay xar yuy doxantu notamment sax ay nag yoo xam ne ci VDN bi foo tourné tase ak ñoom euh, te ngeen wax cadre de vie ah léegi yéen ban mesure ngeen mën a jël pour yu mel noonu euh, di gàllankoor sax léeg-léeg circulation bi mën a dakk bu baax sax ndax man mii rek bërki démb bi may jóge sama euh, sama bureau noonu ci VDN bi may gis benn troupeau de nag boo xam ne ñu ngi nekk ci diggu tëli bi maara deytaan damaa mujj sax tiit donc euh, yooyu yëpp euh, defe naa. nag moom xam naa pël koy moom. pël waa léegi nag euh, sàmm yi ña nga feneen ak feneen léegi. ñëpp ay sàmm séeréer séeréer sax dañuy sàmm léegi. léegi séeréer yi sax dañuy sàmm. waaw séeréer moom dañuy sàmm donc yooyu noo nekkee ay image yoo xamante ne dëgg-dëgg du taawal taaral suñu réew. du taaral suñu réew te it li olof di wax uude nam la gisee noonu la lay ëwee gis nga dina jóge ci bërëb. ñëw ci dëkk bi bëgg fee def lu rëy mais day xool ni ah ñii kat dañu manque euh, manqué organisation ñii kat euh, ndeke ñoom dund yu yàgg yooyu moom moom moom la ñuy dund euh, dëgg la Dakar du du du du Sénégal hmm. Sénégal du dakaar rek plutôt

waaye defe naa di ci ñaaxit état bi parce que question de sécurité moom. Hmm. état moo ko war a ñaax rek doyul est-ce que am na ay mesures concrètes njëkk a njëkk a njëkk a garanti waxtaan i hmm? ñu ciy jël. bu ci bu ci bu ci jiitu. ngeen defe ne bu ngeen jàppoon nag yóbbu leen fourrière borom moom dina leen bàyyi suba ñu doxoon. ànd ak lu ci mënti am faaw nga waxtaan ak ñoom ba pare. Hmm. faaw nga waxtaan ak ñoom ba pare. donc loolu vraiment munu ci munu munu munu munu ci ñaar man a yow tey bu ñu jotee woon bu ñu demee fenn faaw ñu bu ñu demoon ba ci fi mbaxane doonee benn pour ñu àtte ñi du tee fa ñuy njëkkee mooy xool ndax mana ak yow dinañ mën a déggoo dinañ mën a waxtaan defe naa loolu moom la ñuy woowee conciliation ci wàllu droit xool ndax dinañ déggoo ci ay kàddu kon foofu lañ koy njëkkee lépp lu ñuy def sensibilisation concertation lay doon euh, approche bi nga xamante ne vraiment dinañu permettre ku ci nekk di nga mëna déglu sa morom di nga xamné nguur kat bu jugee pour def euh, dafa wara def parce que suñu intérêt la ñu ñëpp waaye keneen nit dina xamné ah man kat ndeki li may def euh, jaaduwul te it du loo xamante ne que ngëneel lay doon. toutes les guerres finissent autour d'une table. effectivement donc concentration mooy li nga wax waaw légui euh, amna luma jaaxal ci cadre de vie xana jël sunu arécar yi peinture ko marron ak beige li gis fan yi ci dëkk bi lo tam ci cadre de vie la bokk. Euh, cadre de vie du du du du loolu waaye buñ ko peinturaatee sax nag dañ ci war a sant yàlla ndax arekaar yi moom couleur bi mooy euh, man waxaguma ci waxaguma ci choix wu <laughs> couleur yi bleu blanc ngeen ko fekk xam nga xam nga nit ku nekk la nga xool la nga xool rek moom ngay gis ah. man xoolee ma ko foofu man taar taaral gi nga xamante ne moom lañ ko taaral mm-hmm. man loolu mooy li nga xamante ne que moom laa njëkk kontaan dëgg-dëgg ndax dafa dafa dafa waroon euh, ndax toog di xaar bus naan fu bis ba jaar euh, mujjante gi da ngay nekk ci mbeddu ndakaaru yi di laajte fan la arrêt ba ne yenn saa bis ba ñëw romb la ndax doo gis arrêt loolu tamit defe naa marron beige moo gën a taaru bleu blanc c'est pas c'est pas intéressant marron a taaru bleu jaune beeg bleu ah, blanc ah couleur bu rafet la daal couleur bu rafet la couleur maa macha allah boobu dama ci am benn taxaw seetlu parce que gis naa ne jamonoy parti socialiste euh, arrêt car yi vert blanc la woon Ablaye Wade ñëw jël arrêt yi def len bleu jaune couleuru partem yen ngeen yeksi dal di def arrêt yi marron beige xamna sax ci Dakar dem di ki ngeen jëm defagu leen ko mais car yi ci bopam fan yi ñu jëm gis ne caru Dakar dem di da danañ nek marron beige lolu lan la lutax nguur gu ñew rek bëgg jël car yi ak yoy def ko sa couleur parti parti ak nguur nak du ben jappé ma nonu ndax fan yi nak mom deug deug sax dañu am benn lo bu important bu ci wara ñew te loolu yàlla dafa dogal. déjà loolu boo deful nag day marron beige. marron la moo tax ñu. Ah, anticiper yow kay soxna si yegg si. marron beige la looloo tax looloo tax ñu ñu wàcc kay daanoo ci <laughs> gën a gaaw dafa a comme yooyu di ñëw dafa dafa fas yéene marron beige. Hmm. moo tax ñu ne nañ ko def rek par anticipation. ngeen bañ a marron beige fépp. parce que yu bleu jaune yaa ngi fi ba léegi. Nous yi marron beige yi jaune continuer fi rek mais marron beige mom ganna ba fan fan yi hmm. euh, ñu marron beige yenen am concordance par rapport ak couleur yi ndax damay ragal nga taxaw ci arrêt boo xamante ne que jaune bleu la wala couleur boo xamante ne xomaan na ba kenn xàmmeetu ko nga fay xaar bis bu jaune bu jaune bleu wala buy xaw a niroog xomaat bu mel noonu faf yàlla nag bu marron bees ñëw romb la nga am problème loolu laa cay bañ. waaw fi mu toll nii wax tontu nga ma tontu politicien waaye <laughs> damay continuer rek euh, ñu waxtaan toujours ci wàllu politique euh, dégg nañ euh, kii di Pape Diop bu bokk gis-gis daal di ne regroupement famille libérale. Macky Sall dal na toogee wet pour l'instant instant ñom ñi nga xamni ñoo woté seen bop libéral euh, dal ñom euh, dañu dajalo ah, ku ci melni ni ay PDS ay bokku gis-gis ay ah, euh, yu melni ni mi et cetera ñom xeyna war nañoo mën a daje waaye dal APR dal na xaré ne ah, ci regroupement famille libérale bobu yow noko gisé xalaatam la wax après tout ñu ñëpp ay sénégalais lañu ay citoyens lañu liberté d'expression dafa am xalaatam la waxé mais concrètement regroupement famille libérale yow loo ci xalaat. regroupement boobu ñun ñun de dañuy sant yàlla sant la président Macky Sall. ndax président Macky Sall ba mu ñëwee liggéey la woote. ba mu wootee liggéey tax mu def une coalition tey mu nekk Benno Bokk Yaakaar tàllal loxo ñëpp nag képp koo xamante ne danga ne sénégalais nga te nekki ni askan bi ak askan bi ñoo la ñor président Macky Sall loolu la woote ba tax na xàmmeewul ka ka ka jaune xàmmeewul ka bleu. ca xàmmewul ka ka ka verte ndax boo xoolee bërki démb lii mu def euh, jël centre international bu jam ñaajo bi tuddee ko le président Abdou Diouf ci nga xam ne kii kat askan bee ko doy Sénégal moo ko doy te liggéeyal askan bi mooy li nga xamante ne que moom moo ko doy euh, keneen ku jàpp leneen nag maa nga féete feneen maa nga wax leneen ah dañuy mën a jàpp nekk rek soo sa sa opinion nga joxe mm. waar bi daal macha allah yaatu na lool te it am na foo xamante ne que Euh, buñ ca tollo di wax waxi politique muy élection buñ ko weesoo nañ xamné wéssu nañ ko ndax réew tamit deug deug mën ta nek 12 mois sur 12 di fonctionner ci politique rek mën ta ne dafa am lepp lo gis dafa am temps dafa am temps bo xamné pour politique la am temps bo xamné pour liggéey la té temps wu bobu ci lañ tollu président Macky Sall émergence la woté tay képp ku japp né yow am nga touche wala am nga ben participation bo mëna def pour Sénégal parce que Sénégal bu émerger du Macky Sall rek la émerger bo ci togué di xala plan euh, Sénégal émergent bi wala ngay am lepp lépp loo ciy nasaxal di ci sanni souf mba di ko xool lenen ak lenen ay pots de banane yo ci jeté euh, man je me dis à la limite est-ce qu'on est patriote parce que bo beugé sa réew lepp lo xamné ne da koy defar lépp loo xam da koy avancer da koy jëmalé kanam euh, ku ko bëgg rek da nga ko wara a bëggale président Macky Sall lool la laaj loolu la woté lool la laaj moy ñun ñëpp ñu and joxanté loxo tout ce qui est considération partisane ko que réew mi de sénégalais deug deug nak buñu démé ba tollu élection ta ci lañ jëm ci lañ jëm euh, dem nañ ci demati nañ ci min nañ élection xam buñ carte yor képp doy ñu ko jox la ko ñuy président Abdou Diouf am ñu sargal ko ah, ay

Euh, Le leader de votre leader. man sama leader c'est le président Macky Sall. waaw kon leader am. Abdoulaye Wade la won. Moko dougal ci politique. Fofu du ci dougu. waaw foofu du ci dougu, ah. mais man sama leader c'est le président Macky Sall Suma dougué ci politique mom motax. tax. Mm-hmm. man mom la gis yeneen ak yeneen yu mu seet. kon dal mën ñoo sargal Senghor sangar Abdou Diouf tepp Abdoulaye Wade. ku ku mu doon ñu sar ñu sargal la. Lutax sargal lu len Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade sargal nañ ko. ndax sargal mënta wees. le président Abdou Diouf. bi mu fi eh, bi mu fiy jugee xam nga Ablaye Wade mi ngi toog nee na cinq cinq millions lañ koy jox par mois pour indemnité Abdou Diouf ba mu fi jugee deux millions la daan am pendant douze ans deux millions te pourtant kenn mësu koo dégg mu toog kaas ko mbaa mu wax Ablaye Wade li muy am ci privilège cinq millions déjà ñu la koy nga boole ci am say jardinier am say yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen te pourtant ba tey loolu doyul yaa ngi laaj leneen ak leneen loo laaj ci lu ne rek pour bëgg jàmm xam ne mag nga te mag dañ koy gérer rek ñu yëkkati loolu loo laaj lu ne ñu yëkkati ko jox la ko laaj bi Ablaye laaj caprice su mag la jox loolu laa mën a jàpp na ndax xam nga booy màggee da ngay naax ah, loolu laa mën a jàpp mais Euh, ci sargal gëm ne Abdoulaye Wade bi daanaa euh, defe naa loolu ñu ko defal lépp loolu ñu ko defal lépp te ay moromam amuñu ko woon mm. dëgg-dëgg nag sargal mën ta weesu loolu ah Abdoulaye Wade ku dégg nga xam ne sore nag naax waaye euh, nañu wax ci li ngeen waxoon rupture ah gouvernance sobre gouvernance sobre et ah, bàyyi gaspillage waaye fan yi la ngeen def ca Gabon de ma nga fa tege cinquantaine de millions dégg naa ngeen fa yàq loolu du cinquantaine de millions gis nga ba euh, chaque fois euh, bëgguma rek ñuy jël yenn yenn discours yi wala ngay xool la neex ba tax nga bëgg wax ca loolu maanaam dugal ko ci noppu askan bi dafa am fonds boo xamante ne c'est dédié aux Sénégalais de l'extérieur muy FAISE donc fonds boobu dëgg-dëgg nag man gisuma ban discrimination la war a am defal ko sénégalais ba nga xamante ne moom moo nekk France bàyyi sénégalais bi nga xamante ne moom moo nekk Gabon parce que ñoom ñëpp ay Euh, dañoo nekk bitim réew ñoom ñëpp tamit dafa am wàll gu rëy goo xamante ne que dañ koy eh, contribuer ci wàllu économie Sénégal ñoom ñëpp tamit ay doomu Sénégal lañ ba tax na fu ñu ne seen nekkin dañ ko faw war a euh, xool war leen a teg ci yoon bépp jàppale boo xam ne aussi dafa war nit war leen ko war a mën a indi parce que ay doomu dëkk bi lañu ça ne veut pas dire que ne dañu génn Sénégal rek te bokkatuñu ci réew mi kon fonds yooyu noonu à chaque fois que de besoin les Sénégalais de l'extérieur dañ bénéficier donc boo ko bëggee à chaque fois di mettre en rapport avec la politique ça veut dire que deug deug nak gestion état amna ci lu bëri lo xamantene ne donte ñi ngi wax ne xam nañ ko ça veut dire que ne yamul ci fond yooyu xaalisu mbumbaay ma ngeen tertoo Macky Sall lañ doon wax waye amul problème <laughs> ñoo ñooñu ay borom yu barké nañu ñoo <laughs> ah? ñooñu dañoo yàgg liggéey nga xaalis bobu ngeen mumbaayee foofu daal tertu Macky Sall bobu lañ doon wax parce que Macky Sall moo fi waxoon bu fi kenn mumbaayati eh, ñooñu ñooñu taluñu mumbaay ñoom ñu mumbaay waaw ñoom ci seen wàll bopp la leen ñor mooy lan la ñuy liggéey parce que loolu boo ko waxee dafay mel ne dañ leen di doye dal tey it defe naa euh, suñuy utiliser genre waxtaan dina tax ba seen mbokk yi nekk fii seen xel du seen xel du dal ndax euh, su fa sama rakk nekkee mbaa sama damay jàppale kon kii ndeke lépp lu ma liggéey da koy caaxaane foofu xëy na Macky Sall génne xaalis jox leen ñu daal koy accueillir pour militant APR ya fa nekk nañ jàll ci benn ko waaw waaw mais moom xam naa laal na gafa gi jox leen euh, pour <laughs> ñu ñu accueillir ko mu mbayal ko loolu amul waaw léegi problème mu Arcelor bi dernière question ah Arcelor ñu ngi koy yëkkati tudd ci hmm, mu ne président Macky Sall la mu signé dafa tuuti euh, Petro-Tim ñu tudd ci ki nga xam ne moo di Aliou Sall ñu ne yooyu yëpp daal ba seen allié yi nekk Benno Bokk Yaakaar nee na yooyu yëpp daal nañ ko publier contrat bu mu ci mën a doon nañ ko publier mu leer ci bëtu askan bi en deux mots. loolu jarul yàkkamte ndax saaga yàkkamtee xeex la le ministre de de de l' économie et des finances Amadou Ba wax na ci lu am solo le ministre des mines Aly Ngouille Ndiaye wax na ci lu am solo waaye nit publication lañ laaj notamment seen i alliés yéen moo tax moo tax ma ne la saaga yàkkamtee xeex la parce que le ministre Amadou Ba lépp la nga xamanté la ca la ca war la danañ ko publier sénégalais yëpp danañ ko xam insha rabbi mhm. loolu amul luñ ci la le fait que sen alliés laj ko ça ne vous dérange pas du tout parce que bu dee opposition bu wax ko dinañ comprendre duñu déranger dafa mel ni seen allié Benno Bokk Yaakaar yi ñoom duñu duñu déranger sen xalaat sen xalaat lañu wax mhm. sen xalaat yu xëy na mënoon nañ ko def ci benen cadre parce que comme ñun ñëpp dañoo bokk fa nané amna ay kuréel ñuy gissé amna na fu ñuy waxtaanee. am na feneen ñu waxoon ko fofu mo mo gënoon ñu taxaw ci presse bi ko waxee ko mënon waxé mais ya mooy bon ils ont droit euh, à l'information comme tous les sénégalais danañ leen ko jox comme tous les sénégalais. Fatou Tambedou, Africa 7 mi ngi lay gërëm di la santé. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen di leen sant di kontaan ci émission bi bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, ñun tam kontaan nañ lool euh, dalal la fi ci émission amul bo may fàttali rek mbokk téléspectateurs yi ki ñu doon dalal tay mooy Fatou Tambedou moom nak moom mooy ministre délégué auprès du ministre du renouveau urbain de l'habitat du cadre de vie est chargé de la restructuration et de la qualification des banlieues yooyu yëpp faram-fàccee nañ ko sank xamna légui touru euh, ministère bi gudd na waaye euh, gën na lèr ci boppu askan wi. di len wax rek ne sen émission amul na bo num koy défé sa su day am dimanche bu jot bu 14h joté ñu di len ko rediffuser mardi bu 22h joté euh, di len ko rediffuser aussi jeudi. Ah, bu midi joté manam 12h de remercier rek suñu partenaire yi rawatina Seneweb nga xamni ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi képp ku bëgg sétane amul nebo boo duggé duggee Seneweb rek mu nekk fi ci réew mi wala ci bitim réew ding ko mëna sétane ci anam yu mu gëna muccé ayib di wax rek né sen émission amul nebo boo ci ciapandaw gi di wax né émission amul na bu ko kenn tardé ndax fi la lépp di leere jërë ngeen jëf.